daal ba ñu dugg ci crise mhm. loolu ñoom waroon nañ ko jomb mais li may attire attention nit ñi ci ci mbir bi mooy Ousmane Sonko man dama xaw a tiit tuuti ci est-ce que dina doon leader buy respecter les institutions. ci naka waaw te su su su su loolu amee rek dinañu delloo ci crise mhm. respect des institutions parce que li ma waxoon rek laay waxaat article cent cinquante article cinquante cinq. Mhm. de la constitution. règlement intérieur mënu ko ëpp doole. munu ko ëpp doole. Mhm. te dawal nañ trois mois. ba léegi ñoom waxuñu ñu moom waxuñu ñu nan la bëgg a doxalee. Mhm. loolu je pense que faute grave la. Mhm. mais en dehors de ça gis nga li ñuy taafantaloo ni ay motion de censure ay amuñu majorité man dama gëm ni ci cohabitation. si la ñu mën a liggéeyee liggéey bu am transparence ba pare bu mën a avancer loo réew mi. élection député yële passé man sama argumentaire bi ma joxe woon pour ni nañu voté contre Benno Bokk Yaakaar je disais que ñoom ñoo yor exécutif bi législatif bi il a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement mhm. ba pare ñuy laajaat eh, eh, eh, législatif bi man je je dis que amul sens mënoo gérer ba pare man maay gérer après ñu ni kan mooy contrôler nga ni jox jox leen ma ma contrôler waaw yan député ngay jàkkaarloo na ko mat loolu man na cee bàyyi xel de yan député ngay xam nga bëgg mu jàll yan député mu ngay jàkkaarlool yan député waaw xam nga loolu waxoon naa ko hmm. Ousmane Sonko borom xam-xam la quelqu'un qui a convié tous les Sénégalais derrière lui député yi mënuñ ko jaaxal te su bëgg ñoom suñu bëggee dugal ay loi yu légitime yu légal amul benn député buy ñemee taxaw di opposé wu man loolu laa gëm hmm, hmm. nañu parce que ñoom élection législative yi la passé il criait cohabitation loolu lañ doon créer léegi tey cohabitation moo fi nekk man ba man ba léegi gaw ma ni dañoo war a tas assemblée nationale pour man dañoo war a raisonner député yi parce que sont des sénégalais xam nga ne man musuma ànd ak ñoom ànd ànduma ak Benno Bokk Yaakaar ñoom rek laa contre mais dañ leen a war a raisonner ba pare ñoom Diomaye ak Sonko dañu war a wane seen leadership pour wane ni ñun comme ni Diomaye waxoon je le président de tous les sénégalais na considérer loolu tamit ci biir assemblée nationale dafa war a doxalee noonu. moom su fekkee ni état d'esprit leadership bi mu yor. c'est élevé non ay député mënuñ ko bloquer mënuñ ko teree liggéey te li ci ëpp solo ba ëpp ci solo mooy dina am ay nit yu koy contrôler yu sincère. loo man loolu man loolu laa jàpp ni mu ëpp solo ci mbir bi mais xam nga nit ñi. peut que dañoo parewul pour doxal normal mais su fekkoon transparence rek lañ pare pour indi moom. Mm. ah ay opposants yu lay contrôler mm-hmm. di la voter say loi doo ko bañ su fekkee ni loi yi ça euh, ci intéret réew bi. Mm-hmm. mais message su Abdou Mbow bi man am naa lu ma ci jàng tamit. Mm. lu am solo. Mm-hmm. parce que sous-entendre naa si ni DPG bi su fekkoon ni Ousmane Sonko def na ko envoyé un message rassurant à la jeunesse sénégalaise xëy na tey booy du ñu dem ci mbënd mi. dinañ toog patienter. Mhm. parce que man wax naa ko bien avant bien avant ñiy wax waxi wàññi man j'ai fait une déclaration ma ni damaa gëm ni état bi warul sax wàññi. Mhm. ñun population bi ñun ñoo war a patienter parce que état bi mënagul wàññi. Mhm. léegi nag patience boobu dafa am ku lay patienté ki lay patienté loo da lay jox ay message yu clair ni la lii ak lii ak lii moo tax nga war a xaar. te loolu Ousmane Sonko il a le discours mën na taxaw te affaire bi c'est c'est médiatisé. na taxaw assemblée nationale envoyé un message rassurant à la à la population ñu toog xaar ko un an ñu nangoo dund dans la misère comme booy ni ñu defee investissement humain di dugg ci caniveau yi di génne ay pono nangam. parce que loolu message rek moo leen dugal ci loolu. na mais na leen envoyé message bu leen téye ci dëkk bi. mais suñu bëggee laaxatu si yenn affaires yi. day mujjee niru. politique politicienne. mais Abdou Mbow en tant que tel. man damaa gëm ni. du koo xamante ni waroon na am fitu ni day adressé adressé à la nation day waxtaan waxaat ak sénégalais moo tax euh, Diomaye wax na ko wax na ci wàllu réorganisation mhm. de l' espace politique mhm. politique bi il faut ñu réorganiser ko te man li may proposer mooy benn benn benn point bi may jël fii mooy mhm. parti au pouvoir bu liggéey par exemple liggéey nga deux mandats ñu gañe la yow mandat bi stop amoo droit opposé wu parce que yow jëlee nañ la fi barki démb lañ la fi jëlee. Mhm. tey nga ñëw bu ko continué waat wax yow rejeté nañ la au moins sax. Mhm. mais nga toog benn mandat boo xam ni yow da ngay dem jaayi yéet wala nga dem bayi kànja wala nga dem defi leneen pour benn mhm. mandat. su mandat boobu ka ko doxal su baaxul sax. le deuxième mandat après tu reviens. d'accord mais man d'accord ma. cercle politique bi ce sont les mêmes personnes. ñoom ñooy politique. ñoom ñooy wax ñoom la ñuy fal ministère ñoom la ñuy folliwaat. ñoom ñooy demaat élection ñoom la ñuy gagné tey suba ñoom ñooy gagné waat non pour ça. ah jërëjëf euh, sëñ Bokar fi ñu doon nag réew mi moom yéen